min biñu tambalé cérémonie bi ba mu ngi dem ci njeextele gi ah di sante khadijatu mi nga xamné par téléphone la xamanté mu woluma ma ne bu mo ñé bëgg na nga jappalé ma ba limay def ci yof ak biti yof mu am solo ah lu lu de la ah, lolu ñu ngi lay si sante yalla yalla sam dila encourager di la wax ne li nga def am na solo mooy génn biti réew fàttaliku ne dafa am village boo bàyyi walla réew boo bàyyi pour mën a def ndimbal yu jóge foofu di ñëw si ñoom damay sant rek grand sëriñ lañ dëkk seeti ñu ngi koy sant bu baax Ablaye Matar Diop ñëpp xam nañ ne man la dénkalee village lébu yéenay samay mbokk waaye xam naa ne ku ma jox cër la masuma ko wax dara ba mu sàllalu ma lépp lu ma ko wax rek taxaw na sa na mu si war a taxawe kon mu yebal jaraaf Matar Diop mu ànd ak ñoom Cheikh Jibril ak Sidaat ak tonton Kader ñoom ñëpp bu ma leen limee juum maa ngi sant grand sëriñ di ko teg si loxo Aldo mu jotale ko ñu sant le sous-préfet comme ni ko ñëpp defee je suis représenté état je suis bi biñ fa je suis geste bi nga je ne je def l'État ko ko ci ko que kon dom nga jo de ya biti réew di ko sa réew ñun état duñu man encourager la jappalé la encadrer la lamu ñu def fa yebal sama représentant mu Abdou sama xarit la ñu

di sant El Hadj bi nga xam ne moom lañu ñu xaddi boole leen ak ñoom mbay saak ñu yéwénal cérémonie bi ah, ñu ngi leen di sant ah, di sant nag waa ASC Ngaparou ak ASC Mbengeen li leen wax ne li ngeen def am na solo yoof benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bokk nawetaan baax na football baax na waaye violence baaxul ñu ngi interpeller yéen xale yi nga xam ne yéen a nekk ci nawetaan di yëngatu ñu ngi leen di wax na ngeen ko def ci jàmm ak discipline bu yàlla dogalee ki jël coupe bi ñu ñaanal ko yàlla bu déwénee ñu defaat yeneen nawetaan ngapparoo jël daaw ah ren yàlla waxul kan mooy jël waaye ku jël rek ku jël rek ñu xam nañ xam ne yoof moo jël loolu nag ñu ngi koy yaatal ba dem wakaam comme ni ko gànna waxee di koy yaatal ba dem ngoor parce que ñun ñëpp ñoo bokki maam di koy yaatal ba Kër Massar di ko yaatal ba Dakar ah di wax xale yi vraiment di ñaanal ñoom El Hadj parce que xale yàlla li mu denc si moom dafa bari moo tax xat yi moom yow il faut yàlla dimbali la cible bi nga def mooy fekk tout tànk nga def cible si ñoom pour def fa sa ndimbal yow inshallah allah dina la dimbali dina la dina la dina la jeme li ngay def sa kanam ala rawati nga am sa encadrement waajur moy sa ndey tok fi moy Adja Bambi ah, ndey dafa am solo ci dom te xamnañ ne liñuy def sa yaay jappale na la ci encadrer nañ si bi ñu waxee wax sa tour yaay ñun dañu soulager wu parce que ñun dañu fonk suñu yaay dañu fonk suñu buñu gisé ko fonk yaayam ah dañu man lu dul jappalé la di sant maam Alsaan Mbeng mooy président comité de gestion Mbengeen di sant waa mbaar mi Babacar Diagne ak ñi mu séqal mbaar mi yëpp vraiment def nañ seen taxawaay def si seen encadrement libéré ñu place bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal mbaar mi yàlla fi yàlla dolli sutura ah di ñaanal ñëpp di wax ne daal xadi incha allah si kanam si si kaw si kanam ñu ngi sa disposition comme ni la ko maire bi waxee. comme ni la ko APEX yi waxee comme ni la ko sous-préfet waxee kon yow sa bunta ubbeeku na li am solo rek mooy lépp looy def rek ku si ne am nga coordonnée bul bul utati intermédiaire si man parce que man xaaruma si yow dara li may xaar si yow dara mooy li ngay def nii tey boo defee benn bu déwénee nga def fukk loolu laa lay ñaanal te loolu lay xaar si yow kon ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla jàppale. di remercier waa ànd taxaw Yoff di remercier nag sama ndijaay Abdou Naar dafa waroon jël kàddu wax mooy sama ndijaay waaw moom dafa waroon wax lépp lu ma def si Yoff taxawu na ma encadré ma maa ko waxaaleel waaw kon moom ñu ngay ñaanal lépp lu ma defaa ah si Yoff lépp lu ma def rek loxaam a ngi si dama ko waxoon ne toogal nga yónni Issa bi moo gën a oyof mu ne ma yow loo def foo ma ñëw si parce que da nga bëgg yof kon tonton yaa ak ñoom tonton Ndiaye jaay ñu ngi leen di sant mu jëloon nag benn don jox ko benn école mooy ay dàll ñëpp xam nañ ne maay président parent d'élèves yu bu yof mais dàll yi dama ko wax ne nañ ko jox waa quinze zéro école ba la nekk ndenaat don bi ñu jox leen ko ab du Seck dinañ joxe symboliquement 15 euros Abdou Seck après seen don dina ñëw ah kon ba xadi kii xadi jatu ñu ngi lay ñaanal di la sant di wax ne Malick am na projet bu ngeen bu ñu waxante barke demb kër gi loolu incha allah bu jàllee ak APEX ak commune bi ak le sous-préfet ak bonne volonté yëpp dinañ ko yéenal loolu pour ñu gën a encadrer xale yi vraiment ñu ngi sant presse bi di ñaanal Yoff Mbollo TV. di ñaanal le DJ mooy sunu kilifa jaraaf moom it ñaa ngi koy ñaanal di ñaanal ñi fi teew ñëpp di wax ne ngeen baal ñu àq ngeen ñaanal ñu objectif ak yéene yi ñu am si yoof mooy yoof jëm kanam benn objectif lañ am mooy delloose démb yoof bi yoof na ku ko bëgg a delloose il faut nga jël référence si mag ñi nga xam ne ñoo fi taxawoon di taxawu village bi ñun nag jël nañ référence si ñoom pour delloo sa yoof valeur bi mu amoon ñàkkul sax waaye ñàkk a déggoo ak ñàkk waxtaan moo tax lii xew-xew te benn bopp kenn mënu koy xar ñaar ñun ñëpp bokk yof kon lu si ne rek nañ ko waxante yéwénal ko comme ni mu demee tey bu ëllëgee bu leneen xewee ñun ñëpp ñu ànd ko vraiment ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal presse bi di ñaanal Mati Mbeng moom sama jigéen la bu ñu bëggee presse moom la ñuy tuusee ba ñëpp ñëw RDV DTV Sen TV TFM Yoff Mbollo TV Zoom Info ah ah le quotidien ñëpp ñëw nañ ah loolu nag bu amee ah sant yàlla rek boo amee mbokk moo xam dafa am taxawaay kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp dafa guddi tonton du ñaar maa lépp sa kàddu te xam naa di mag a nangul kon ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gër ak abam bi ñu ngi lay sant yow mi ñu jugal doom boo xam ne mu ngi fàttaliku village am ak dëkk dëkkam vraiment ñu ngi sant ñëpp Lamine boobu ñu ngi lay sant bu baax merci beaucoup Saldigé kon euh, automatiquement ñu ngi def remise rapidement bu la goudi. kon bàyyi wasey nous rapidement nga euh, liste les délégations rapidement les délégations Wa kon dañuy o Mbaye Sar pour mu ñëw jëlal wa Yoff sen 4 lots Mbaye Sar, vous êtes appelé ñu ñaan Ali bu ngor mu préparé wu donc mbay sar dañuy o mbay Sarr dañuy o jaraf mu ñew remettre ko cadeau yi nga xamante mo jëm ci école de football yu yof jaraf bismillah mbay waaw cadeau voilà ñu tàcc lolu bu baax tàcc leen lolu way Khadija jërëjëf jërëjëf Khadija jërëjëf Baye Baye Seye Ali bu mu préparé Ali bu ana Ali bu naa def. ça va moom. Ah, léegi donc moom day jëlal euh, yeneen yi desuñ pour Ngor yëpp ah. waaw. Ah. yow yaa ngay ji am na aussi ah. Lamarane. waaw kon yow ñaar ngay jël waaw kor ar yi nga xamante ne jëm si école de football yu yofi merci jaraf merci encore har xarjatalu merci anda taxawu yoof kon dañuy o ndai ji ndai nday Ali

onyinga iko de football yi waaw dañ ko bëgg a pour jëkkale temps ki kii moo jox ñii ñëpp waaw ah, donc ñu rappeler ne Babacar euh, Mbaye Sarr mooy jox Zesla mooy jox également Mama Sport mooy jox école de football Mbaye Diouf mooy jox école de football Brésil donc ñooñu jox nañ leen mu ngi ax Mbay saar Guèye Djib également mooy jox euh, Lamarana également aussi mooy jox école de football bu Guèye Djib moo Ali aussi récupéré na bosam kon dañuy oo Aziz Ndiaye bu Wakaam ñu oo ñu Bambi Ndiaye pour mu remetre ko loo yi nga xamante ne moo jëm si école de football yu Wakaam Adja Bambi vous êtes appelé

Ya. ma oo eh, Beng. Oh, président Mame Alassane Beng, président Mame Alassane ak ah, Cheikh Samb. ñu ñëw remettre loo yi nga jëm Dakar. président Mame Alassane. ak président Mame Alassane jibril Samb Cheikh ak ah, Cheikh dina remettre ya, la presse la presse merci merci encore à ah, Khadijatou Lo et eh, au oh, mouvement ànd taxawu Yoff. ñu ngi oo Adama Niang bu Kër Massar Adama Niang Adama Niang ñu ngi koy wo ñu woo grand saltige Momadou Mbeng mu ñëw remettre doo yi nga xamante ne ñoo jëm Kër Massar kaat 4 4 donc Adama Adama Niang moy remettre école de football Pape Gueye également moy remettre école de football DARU Missé moy remettre également Génération Foot à ASC FAS. délégation Rufisque SIDAT, Sidat ak Kader. donc nous, ngi nuyu délégation Rufus, SIDAT, ak Pape Kader ñoo Nous, fi représenté ñu ngi leen di nuyu baax di leen tatagal merci vraiment jërëjëf. Pour la RSIOF, nous appelons Aziz Ndoye pour nous récupérer l'enco, ni au Papa pour nous donner Aziz vous êtes appelé pour de la loi Aziz, hein? Oui. Ah, ok. la ah, Merci vraiment, pour kan moo ñu suñu maam Abdou Naar président des délégués de quartier mu defar mu def remise bi. way tabax euh, école Kenzero nga approché pour loo yi ah. merci président des délégués de quartier. loolu mooy remise bi jëm si USO bu Wakaam. ñu ngi woo. Olympique de Olympique de nous ñu ngi leen représentant APEXI pour nous offrir leen. représentant APEXI est appelé. Monsieur Daba deuxième vice-président de l'APEXI pour la remise. Okay. après Ndiaye Diagne mooy jël beneen loo bi waaw. ah Ndiaye moo koy def ah. ok. ñu ngi woo suñu papa délégué de quartier pour mu ñëw jox remise bi nga xam ne moo jëm école Ken Ziro Tabara war ko jël en tant que représentant des parents d'élèves suñu papa Ndiaye Diagne ñu ngi koy woo pour mu joxe remise bi. Diena. ah euh, Diena léegi baax na. ASC Fass mooy surprise ASC Fass jox na la jox nan la ko. non non boobu bokkul. kii lan la jox no non non euh, bi ma la woowee suba. am na beneen école. waaw mooy école ma la woon tey suba. boobu mooy ASC Fass moom mooy. Ah, yële wala yële dafa am ni ñu a jox. non yële dafa am yoo xam ne xam nga déjà Dakar. Hmm. ñoom dañ ñoom ñu ngi wax deux dañ leen war a prévoir quatre dañ leen koy joxaat bu ñu duggee ah. benn bi day nekk benn boo xamante dafa euh, dafa dafa maison rugby Fatou est appelée Fatou représentant maison rugby ñu woo Harjat Harjata Lo pour la remise Harjata après vous êtes appelé encore merci Khadijatou Lo merci au mouvement ànd taxawu Yoff sant na ñëpp gërëm nañ ñëpp ñi fi teew saldige Mamadou Mbeng Bayda amuñu sa fay également nday ji réew Ali Be koy sant bu baax di ko ñaanal di yóbbante suñu nuyoo ak suñu ziar si grand serigne de Dakar Ablaye Matar Diop. coutumier les autorités étatiques les autorités politiques yi fi teew yëpp ñu leen di ñaanal yéen ñëpp di ñaanal ñëpp kon euh, yàlla nañu yàlla may. mais grand félicitations. kontaan naa kontaan Lamine félicitations Lamine. félicitations Lamine félicitations. Samb gis nañ saltige wax na ba pare waaye yow euh, li nga xamante ne moom nga représenté biir Yoff rek moo tax yow il faut ñu jël say kàddu nga sànni si sa ay impression rek ci bés bi. waaw jërëjëf euh, man Ngor laa dëkk dëkk Yoff dëkk Wakaam dëkk Ndakaaru ànd ak euh, le saltige Mamadou Mbengue. bi jiite le comité de pilotage des 121 villages ci ndigalu le grand sëriñ Abdoulaye Mokhtar Diop. Donc une telle cérémonie à Yoff qui est le berceau de la communauté Lebou. vous avez vu que les Lébou yëpp fi daje di ko sant yàlla ci cérémonie bi am solo bi que xamee ne suñu jigéen suñu sœur Khadijatou moo ko doon joxe di teraanga bu jëm ci suñu ay doom waaye moment de communion la ci contexte bi vous avez vu le drapeau sénégalais

loolu la ñu soxla ci jamono bi ñëpp bokk ndey bokk baay ñu ciy gërëm saltige Mamadou Mbengue ci taxawaayam bi wax dëgg yàlla di ci gërëm waa Yoff yëpp mag Yoff jigéen Yoff kilifa Yoff maire Yoff rawatina représentant maire Wakam ak maire Ngor loolu mooy Sénégal ne ñëpp bokk nañ bokk bay alhamdulilah. beneen laaj bi may laaj rek mooy euh, ni nga ko waxee seen doom doomu yof moo génn dem bitim réew ñëw daal di dimbaliwaat ñi nga xamante ne ay doomu yof lañ loolu tamit euh, soo doon lancé sa message su ñuy génn ak euh, ñeneen ak ñeneen daal loo leen di wax. loolu dañ ciy jàng lu bëree bëri rek day wax ne nag doomu yof ji génn dem ci ba beneen réew jubboon ak waa réew ma. waaye jubboo ak i bokkam itam moo tax mu war a mën a dellu pour bàyyi xel fa mu joxe lañ siy bàyyi mooy ñu dal ci diaspora bi doomi Sénégal rawatina doomi Ngor Wakaam fu mu toll na bàyyi xel fu mu joge lii leçon la pour njabot gi leçon la pour ñi nekk biir réew ñu bàyyi xel njëriñ mom du tuti kenn du ko xeeb teraanga mom du tuuti macha allah fa dabaraka la ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mu mel ren yalla ko ci yalla jappale bu mel lu ko euh, ëpp. leçon la pour communauté bi leçon la pour xale yi ñu ko ci ñaanal yàlla di leen gërëm di leen sant macha allah. ñu lay jaajëfal <laughs> merci. Xadijatu euh, loo ni ñu ko waxee rek yow yaa waral euh, bés bi nga xamante ne lii euh, dajale ñu fi tey léegi laataa ñuy tàmbali rek ma bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateur. Assalamualaikum, ma ngi nuyu ñep di len fay di len remercier ci teewaay bi ngeen di teew fii man la Khady Diatullo comme niñ ko xamé wa yof gën ma xam ci di halo man doomu yof la fi la juddo fi la magge fi la yoro fi ni ñu waxé ni fi la fowé école 3 bi laa jàngee waaw. Khadijatou comme niñ ko rek nga nek doomu yof genn dem Canada wo fi nga xamantene fa nga lolu waral nga ñew def fi lu am solo li nga xamantene ne gis nañ ko ñu lay waral rek lan mo waral am initiative bob waa li waral ma am initiative boobu comme li ma la wax rek xale laa fii laa juddoo fii laa màggi fii laa yaroo gis difficulté yi nga xamante ne sama waa réew sama waa dañ koy jàngantoo mu ci mel ni sport wala éducation ma jaar si nag mu métti woon loolu ba nga xamante ne loolu daf ma gën a yokk jom ah, dem àll taxawul nga fàtte fii nga bokk xam nga bu àll neexee liñ naan guddi guddi jolof man dama naan guddi guddi yoof donc mënu ma fàtte waa yoof lu ma am yoof la fii laa débuté te fii laay terminé donc amour boobu des si man dama mës a am amouru sport ak xale yi surtout loolu nag nekk si man dafa doon virus boo xamante ne chaque année dama naan damay bàyyi bii mooy sama dernier année mais bi ma ñëwee tey sama xol dafa fees bi ma gisee xale yi dafa mel ni courant bu ma poussé waar pour bu ma demee ma gën a yokk gën a fas jom gën a indi pour ñu gën a kontaan. kon dafa mel ni Xadijatu moom sportive la lu waral mu bàyyi fii euh, yeneen ak yeneen daal daal li nga xamante ne ni nga ko waxee rek ay xale lañ ba pare di yëngu ci sport. xam nga lépp loo gis dafa am loo foo fay jaaree. xale yi dañu dañu am xel mais am na ci ñu ci bari ñoo xamante ne sport bi moo leen gënal mais boo comme par exemple ngay gis koo xamante ne dafa xiif nga tàllal ko banaana noonu la demee da leen di xëcc ci li nga xamante ne moom lañ bëgg pour nga mën a am li nga bëgg ci ñoom.